est-ce que foogoo ne nekkul ci sentiment de regret. mais bien sûr si c'était à refaire du ko def. mais bien sûr parce que en certains moments, li ñuy les sécurocrates jël nañ en otage dugal ko ci je cherche pas l'absurde parce que moom moo ko nangu. tout à fait moom moo ko nangu mais est-ce que a un sentiment non. de regret. mais par force. et ci fin temps bi. ngay gisee ni mi ngi dellu ginnaaw bu baax a baax xam nañ bi mu jaaroon du yoon bu baax bi et puis ñëpp waxoon nañ ko ko. Mhm. mais boo gisee nit ñi daan génn magistrat yi ki bind affaire terroriste euh, wax yi ngand yoo xamante ni yow da sa kaw lal. wax ne moom xanaa àdduna bi àdduna bi a tukki suba wax yi ngand yooyu. ba pare benn guddi nga génne terroriste yeeg force obscure force obscure bëgg a réew bi Antoine diom génn force spéciale wax mais lu en fait il se permettait tout quoi il se permettait tout. mais nan nga mën analyser folie boobu. mais parce que wala ñoom xamuñu état wala. non xam nañu dañoo jàppoon ni dañ ko def ci xalifa Sall mu neex ñu def ko ci Karim Wade mu neex. mais nous sommes pas allés parce que xam nga làmb ji nag bu ñu nee tëll nga nga nga ne nga daanu. Mm-hmm. jarul jarul waaw jarul jarul jarul. xool nga ne tëll mu daanu tëll mu daanu kii nga ne ko tëll mu résisté nga tëll tëll mu résisté. waaw bàyyi ma indil ko seytaane indil ko lépp lépp lépp rek loo si jot rek sànni ko dañu daan dem ba tu te poses la question lan la waxul Sonko quoi comme si luñ luñ luñ jot ak ëmb na aussi et puis dem nañ ba ëmbal sax aji sax. de <laughs> que limite ci peuple Sénégal.

aussi il y avait un roc. Euh, en face en face ñu dem ba dal ci ba dal ci ba in fine nag. Hmm. ba ba jër affaire le jeu du poker coréen may gagne chaque chaque jeu. Hmm. fo jaar mu ah, ci lañ soga indi wat sen xel yalla xamni pouvoir bi day jeex euh, Sénégal day woy bi mhm. day des mhm. moo tax man dama naan ku ci def lu bon nañ ko jéggal mais ndax woyam yàqu bu mu yàqu rek dara gënu koo métti ci àdduna mhm. ndaxte président sortie bi dafa am solo te bizarrement les libéraux ñoo ñoo fa am sortie bu ñaaw